الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومهوى الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أمرنا ربنا أن نقرأ الفاتحة في كل ركعة ولا تصح الصلاة إلا بها فقراءتها شرط من شروط الصلاة ومما نقرأه في صلاتنا فيها اهدنا الصراط المستقيم فنحن ندعو الله أن يد- أن يدلنا على الصراط المستقيم فنعرفه وأن يوفقنا بعد معرفتنا له فنسلكه وهو الصراط النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وندعوه أن يباعدنا عن الطريق المغضوب عليهم وهم اليهود وعن الطريق الضالين وهم النصارى mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonent muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko mbokki jullit yi sunu borom subhanahu wa taala mooy ki nu digal mooy ki nu sant nuy jàng faatiha ci sunuy julli ñuy jàng faatiha ci bépp rakka julli gi du mën a wér lu dul dañ cee jàng fatiha yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na laa salaata liman lam yaqra bi fatihatil kitab képp kuy julli jàngul fatiha julleem wérul jàng fatiha mbokk jullit yi sart la ci sart yi wéral julli kenn ku nekk ci ñun boo dogee di julli ci sa julli googu foog nga jàng ci fatiha pour julli gi wér waaye ci biir fatiha noo ngi fay ñaan di fa jàng ihdina siraatal mustaqim yow yàlla noo ngi lay ñaan nga jubal nu noo ngi lay ñaan nga orienté nu ci yoon woowu di saw yoon di yoon wu jub waxtu bu nekk ci sunuy julli danañ ko ñaan yàlla nuy ñaan yàlla mu dëppale nu ak yoon woowu ba nu mën koo sóobu waaye ci biir julli gi danañu ñaan yàlla mu soril ñu yoonu gaa yooyu nga xam ne yàlla da leen a mere ak yoonu gaa yooyu nga xam ne dañoo réer kon jullit bi ñaan na ñetti ñaan ci bi muy jàng fatiha ñaan na yàlla yal na ko yàlla saxal ci siraatal mustaqim waaye ñaan na yal na ko yàlla soril yoonu ñu réer ñi waaye ñaan na yal na ko yàlla soril yoonu gaa yooyu nga xam ne yàlla def leen a mere yoonu gaa yi jub yi mooy islaam mooy siraatul mustaqim loolu alquran moo nu ko wax wa anna hada siraati mustaqiman moo tax chaque jour ñuy ñaan ihdina siraatal mustaqim yoonu gaa yi nga xam ne yàlla da leen a mere mooy yoonu yahuud yi waa ñooñu lan lañ def ba yàlla mere leen mooy yàlla daf leen a jox xam-xam wàcce ci ñoom téere nu lànk bañ a jafe téere yooyu yàlla jox leen mathalu alladina hummilu tawrat thumma lam yahmiluha ka mathalil himar borom bi ne ñooñu nga xam ne dañ leen jox xam-xam jox leen téere bu tudd tawraat ñu lànk bañ koo jëfe yàlla nee na ñooñu soo leen di jox misaal mbaam rek nga leen mën a jox ñooñu ay mbaam lañ moo tax yàlla mere leen parce que yàlla daf leen jox xam-xam ñu bañ koo jëfe ñeneen ñi ñooy ñan mooy nasaraan yi ñooñu lan lañ def ba nekk ñu réer mooy dañoo layal ne yàlla dafa am doom moo tax yàlla mu ne ñii ñoom dañoo réer ñee dama leen a mere kon ñaari yoon yépp du dagan ci ñun jullit yi ñu topp ci kenn ginnaaw ñun ba nu ameew sunu yoon sunu yoon mooy ban mooy yoonu yonent yi siraatu nabiyin mooy yoonu ñu dëgguña siddiqin mooy yoonu suhada ñi faatu ci yoonu yàlla waaye mooy yoonu saalihin ya mooy gaa yu baax ya ñu ñaan yàlla mu teg ni ci yoon wi mu soril ñu yeneen ñaari yoon yooyu loolu mbokk yi buñ koy naan day nekk jamaa mbooloo yenn saa yi mu nekk ay individu ñun ñëpp buñ ko ñaanee ba pare bu saar bi jeexee ñun ñëpp lu ñuy wax amiin yow yàlla yal na nga nangu sunuy ñaan waaye li ruslu mooy taxaw ci kanamu yàlla ñaan ko ñaan gi ba pare ba ñëpp ne amiin nga génn topp yoonu gaa yooyu nga ñu la tere woon yooyu nga doon ñaan yàlla yal na la ko soril nga génn topp ko fi mu nekk nii noo ngi nii toog julli si ajjuma waaye lu ëpp ci ñun ci kaw jumaa ji ci biir jumaa ji ci biir ci biti ci mbedd mi lu ëpp ci ñun seeni frigo mu ngi fees dell ki ginaar ak ay fruits ñu ëpp ci ñun génne nañ li ñuy 31 ba pare ba teg ko non lii pour 31 bi la bul ko laal dépassu kër gaa ngi ne mais lii moom uniquement pour guddi 31 décembre la bul ko laal dégg nga de loolu ngay wax ak sa soxna léegi nag nga fas loolu ba pare nag nga gàddu sab sijaare nag ñëw jublu ci yàlla naan ko ihdina siratal mustaqim quelle contradiction ñaar yooyu mënul nekk yow yaa waxoon yàlla na la jaaral ci yoonu yonenti annabiyin yow yaa wax yàlla mu teg la ci yoonu siddiqin yoonu abubakar yoonu hamza yoonu usmaan ibnu affan nga ni yàlla mu sori la yoonu gaa yi nga xam ne almaghdub alayhim wa humul yahud wa an tariqi dallin wa humu nasara ñu wax loolu ba pare nag ñun ñëpp ñu ne amin ñu nekk mbooloo ñu nekk kenn yow yàlla yal na nga nangu sunu ñaan léeg-léeg dañuy wax ne nun sunu déggoon alquran première saar yu ndaw yi rek kon du nu feetu 31 décembre du nu feetu 24 saar yu ndaw yi rek suñu jàngoon fatiha ñu dégg ko ñu jàng qul wa allahu ñu dégg ko ñu jàng qul ya ayyuhal kafiruna ñu dégg ko ñetti saar yi rek rek suñ ko jàngoon ñun waa Sénégal ba dégg ko rek kon danañ xam ne mbirum feet 31 ak 24 suñu yoon nekku ci waaye mal asaf tey ci Sénégal préparé nañ làmp yi peentir nañ garab yi ak tali yi mbedd maa ngi fees dell ak ñuy jaay ay kado commerçant jullit yi damay seetaan ci télévision benn chaîne boo xamante ne christianisme dong lañ ciy jàngale yéen ñi am antenne parabole bi seen boobu christianisme rek lay jàngale boo jàppee màkk après ñoom nga ciy teg moo koy seetaan ñu invité benn labbe barki démb ñu koy laaj ci Noël 24 décembre mu ne ñoom problème biñ ci am mooy commerçant yi ñoo sàcc fête bi ci seen loxo commerçant yi ñoo sàcc fête bi ci seen loxo parce que commerçant yi ñoo ko def fête goo xam ne jaay kado kese la te mu ne kado taxut a jóg bis boobu chrétiens yi ñoo ko doon wax de pape bi moo doon wax loolu labbe bi moo doon wax loolu ma ne allahu akbar te waaye kooku mu ngi wax ak waa France mu ne commerçant wu France yi dañoo sàcc fête bi parce que ay cadeau dong lañ ci jaay ba nit ñi yaakaar ne fête bi pour cadeau la ma ne ko cey boo ñëwoon Sénégal nga fekk ñoom Muhammad ñoom Abdallah ak ñoom Fatima ak ñoom Khadija ñuy xëccoo fête bi waxuma la commerçant waaye ñoom dem nañ marché jënd cadeau yi jënd ginaar yi dem ca boulangerie bi jënd mburu mi ñëw toog di xaar jour bi jot allahu akbar mbokk jullit yi fa muxaalafatul kuffaar wuuteeg yahuud yi ak nasaraan yi yéeféer yi sunu diine loolu la nu sant ñu bañ a wu nuru ak ñoom min azami maqasidi sharia li gën a rëy ci jubluwaayu sharia islam mooy wuuteeg yahut ak nasaraan loolu moo gën a rëy ci sharia maqasidu sharia sharia islam lu ko tax a jóg mooy wuuteeg yahut ak nasaraan sunu yonente alayhi salaatu wasalaam yàllaa ko wax ci alquran summa jaalnaaka ala sharia min al amri fattabiha wala tattabi ahwa alladina la yalamuun looloo ngi ca suratul jaasiya aya 18 ku jóg tey boo paree julli jumaa nga dem ubbi ko sunu borom nee na man yàlla tabaraka wa taala summa jaalnaaka alkaafu yaudu ila man muhammad man yàlla maa la teg yow muhammad yow sama yonent maa la jaarale maa la wax ala sharia nga nekk ci sharia islam ala sharia ci sama wu yoon man yàlla laa la teg xam nga lu doy waar yàlla bu tegee yonent yàlla muhammad ci sharia bu ko ci bàyyi woon rek doy na waaye mu ne ko fattabiha topp ko nag ginnaaw ba ma la ci tegee topp ko jaar ci nekk ci lii doyoon na aaya bi fii dong doyoon na yàlla mu ne ko wala tattabi ahwa alladina la yaalamuun bul topp waxul diine de waxul sharia ahwa ma maana hawa afara'ayta man ittaxaza ilaahu hawa bul topp bànneex bànneex la gis nga lii nuy feetu nii ay bànneex kese la ak caaxaan moo tax yàlla du juum mukk ci àdduna da ngay gis ku nekk ci loolu ba bët set mu dox ba guddi gi jeex mu nelaw mu ñëw tëdd yeewu midi mu daje ku mel ni moom mu ne ko bonne année mu ne ko bonne année wax nañ dëgg yàlla du juum ñaar ñooñu daje lu ñuy wax waaw akolaatante gauche à droite bonne année bonne année wax nañ dëgg année bi dafa bonne wax na dëgg baaxul ci yoon parce que yéen année bi yéen a ngi ko tijjee mooy yàlla yéen a ngi ko tëjee mooy yàlla loolu mënul baax kon kay jaadu na ki xëy suba mu ne la bonne année yaa bonne année nga ni ko yow it yaa bonne année waaw yàlla juumul allahu akbar wallahi yàlla moo wax dëgg mbokk jullit yi yàlla mu ne ko fala tattabi ahwa alladina la yaalamuun bul topp nga la waay yow muhammad bul topp gaa yi nga xam ne seen bànneex dong la ñuy topp xam nga lu tax ñu topp seen bànneex parce que xamuñu léeg-léeg nga gis benn sindax bu taxaw naa non ñun feetuwuñu bisu Isa passé na loolu 24 la lii nekkatul mbirum Isa léegi mbirum année la te année bi c'est mondial ñëpp a ko bokk c'est la léegi année bu année ñan la ñan ñoo ko moom bu doon année jullit yi sax la ndax dëgg-dëgg nii ñu ciy def noonu la ab jullit war a def te yonent bi traceel nañu ñun mu ne fa amara allahu nabiyahu bittibaai sharia wa nahaahu an mutaabaati alkuffar wa mushabahatihim yàlla mooy ki digal yonent ne ko saxal ci sharia bi waaye lu doy Sén- lu doy waar Sénégal mooy da ngay dégg jullit yi ñooy taxaw naan sharia lan ban sharia sharia kenn mun koo dund sharia dafa metti sharia day def nangam yenn saa yi sax ca kilifa diine ya la ca sommet ba moo tax Sénégal problème bu rëy bi ñu njëkk a am mooy loolu olof yi di wax weñ ngaa nga bañ a ca mbanjaxaan nga weñ gi xam ngeen fan la dëngee ca commencement ba diine ji la ko yàq yàpp la ko dënga yàpp ca këru diine ya la ñoo dëngal diine ji ñoo jàddloo jaami yàlla yi ñoo leen waxul dëgg foofu la mbeñ weñ nga bañee yàllaay ki teg muhammad ci sharia ne ko fii laa la teg waaye fattabiha na nga ko topp xanaa xamu leen ne yonent bi moomul sharia xam ngeen yàlla bi mu tegee muhammad ci sharia ba pare lan la wax walaw taqawwala alayna ba'da al aqawil la axadna minhu bil yamin thumma la qata'na minhu al watin loolu ku ko waxoon yonent bi kese soo fekkoon yonent bi toog kese nga wax ko lii direct yéen ñaar kese saxaaba yi dañ lay rey xam ngeen yàlla lan la wax Muhammad gis nga li ma la jox sharia bi ma la teg soo ko wàccee alxuraan bii ma la jox boo ci changé benn virgule walaw taqawwala alayna baada yàlla waxul lépp de lenn virgule boo ko changé ci téere bi danaa la ne zëcc ak sama loxo ndey joor man yàlla kan la yàlla di waxal muhammad xayru xalqillah ma xalaqal ilahu wala tura basaran yura ka muhammadin baynal wara mbindeef yépp ña dem ak ñi ñëw ña dem fekk ñu fa ku mel ni muhammad ñi fi des ku mel ni muhammad dootu leen fekk si moom la yàlla ne li ma la jox boo ko changé woon virgule dinaa la jàpp dinaa la ne zëcc gësëm la du ma yem ci poñe la waaye dinaa dagg sa put allahu akbar moo tax mu ne ko fattabiha topp ko wala tattabi ahwa alladina la yaalamuun bul topp gaa yi nga xam ne seeni bànneex kese lañ topp xamuñu ba moo tax ñuy wax li ñuy wax mbokki jullit yi ñëw na ci sunna yonent bi alayhi salaatu wassalaam xadiisu ibnu umar qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bu'istu bisayf hatta la yu'bad hatta yu'badu llah la sharika lah wa ju'ila rizqi tahta zilli rumhi wa ju'ila adh-dhillatu was-sighar ala man khalafa amri wa man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum rawahu ahmad yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yàllaa ma yónni may njaganaayoo sama ngànnaay bi sayf sama jaasi ma koy njaganaayoo fu ma toog jaasi ji day nekk sama wet lan laa koy doyee hatta yubadallah ba ñu jaamu yàlla rek kenn du jaamu leneen lu dul yàlla ku fi wax leneen lu dul yàlla rek ma dagg sa bopp loolu la ma yàlla yónnee man Muhammad yàlla kese mu ne yàlla def na sama dund li may dundee mu ngi ci sama suufu fett yi waaye yàlla def na toroxtaange ak tuuti ci képp koo xam ne dafa wuuteeg man allahu akbar dañ leen déglu baas xadis bi wa ju'ila zillatu wastigaar ala man xaalafa amri képp koo xam ne dafa wuuteeg man Muhammad yàlla dina la toroxal yàlla dina la tuutil moo tax jullit yi du ñu dem ba ñu wuuteeg Muhammad ba léegi dañoo torox partout dans le monde ñoom rek la ñuy dóor ñoom la ñuy rey ñoo feebar ñoo ñoo ñoo ñoo partout lu tax parce que dañoo wuuteeg Muhammad keroog ca Uhud bi yonent bi ne ñu yor xeej yi ñu yor fett yi taxaw leen ci montagne bi bu leen wàcc mbir mi lu mu metti metti bu leen wàcc xeex bi départ gaa yi gis yéeféer yi daanu ñuy jël koom gi rek ñi nekkoon ci montagne bi daan ne ah ñun buñ fi toogee duñ ci ama ndax gaa yaa ngi jël affaire yi bagage yi gaa yaa ngi koy for rek ñu wàcc allahu akbar xaalid ibnul walid jamono jooju yéeféer la woon tuubagul mu xool montagne bi gisu ci kenn moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla def kaa mayoon mu xam mu am stratégie yu garaaw moom yonent bi ci xeex gis nga badr moo tax mu gañee jiitu na yéeféer ya ca terrain ba tànk ndox naan suul teen yi tey fii ci uhud fii ci uhud tey soo demee ba taxaw ci montagne bi da ngay xam yonent bi yonent la woon yàlla tànn ko yónni ko waaye yàlla di ko xamal loo xamante ne bokkul ci téere bi boo demee ba ci montagne bi nga koy xam yonent bi dafa teel a jóg dugg montagne bi ñëw ba taxaw mu xool waa Màkka fan la ñuy jóge mu ne fii la ñuy jóge ah, kon ñun nañu nekk fii montagne bi féete ñu ginnaaw aar nu waaye jant bi féete nu ginnaaw ndax ñii 11 heures ak midi la ñuy xeex ak ñoom day fekk jant bi tàng day tàppe suñu bët bu ñu jógee côté bii yonent bi wan gin jant bi ginnaaw wan xeer bi ginnaaw jàkkaarloog gaa yi gaa yi bu ñu ñëwee naaj bi tàng mënuñu woon gis ndax ceeñeeru jant bi dafa jàpp seeni bët sallallahu alayhi wa sallam boo fa taxawee di seen sooroori jàkka yonent bi waaye gaa yi ba xeex bi tàngee ña nekkoon ci montagne bi gis gaa yaa ngi for jumtukaay yi ñi ngi jël fas yi ñi ngi jël jaas yi rek ñu ne ñun buñ fi toogee du nu am dara ñu wàcc allahu akbar Xaalid ibnu Waliid daal di wiireeg fas yi daal di yëg ci montagne bi ñu képp jullit ñi ci digg bi ñee di dóor ñii di dóor naa fekk yëpp daw bàyyi yonent bi cundung ñu dóor yonent bi mu daanu casque bi tañ ci bopp bi oom yi xureeku ñu rey Hamza rey Musab ibnu Umayr genn wàllu sahaaba yëpp ñu rey leen ba ñenn ñi sax ne yonent bi rey nañ ko yéeféer yi ne ñun lool rek lañ bëggoon daat daw ndeysaan bi xeex bi jeexee yonent bi ne xam ngeen lu tax ñu gañe leen gaa yi ne teg mu ne da ngeen a wuuteeg man man saa yu ngeen wuuteeg man du ngeen am ndam fal yahzari alladina yuxaalifuuna an amri an tusibuhum fitna aw yusibuhum azabun alim yàlla nee na moytu leen wuuteeg yonent bi saa yi ngeen wuuteeg moom yàlla dina leen mbugal adduna dina leen mbugal alaxira moo tax du nu dem diine ji sharia bi yàlla muhammad la ko jox suñ ci buggee seppi loxo muhammad topp ay caaxaankat ay sabarkat ay tëggkat ay fecckat ay ñoo xam ne dañuy sonal suñu bopp mais duñu am tiyaaba sharia islam yàlla sayduna muhammad alayhi salaatu wasalaam la ko jox yonent bi nee na wa man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum képp ku nuru nurulu ay nit yaa ngi ñoom a yem 24 décembre 31 décembre xëy na kenn ci mbooloo mi ndeysaan mu ngi fi woone ma téléphone ci benn débat bu mu doon def benn werante benn waay bu mu doon wax ne waa ji doon wax ne man de damaa jënd ay ginaar rek pour sama kër man ak sama soxna samay doom mu koy waar pour waa ji bàyyi loolu ñoom ñaar ñu xëccoo ñu def seen portable mais libre ñu woo ma pourtant chaque jour ma wax ko ñun ñi ñëpp xam nañ lu waral 24 xam nañ lu waral 31 waaye borom kër gudul borom kër nga nekk borom kër ba pare di woddu au lieu nga sol tubéy yow yaay woddu sa soxna mooy sol tubéy ji loolu moo nekk tey Sénégal ibnayya inna min arrijali la bahima borom xam-xam bi da doon waar doom ji mu ne ko doom mu ne ah bàyyi mu ne am na ci nit ñi ñoo xam ne ay bàyyi ma lañ inna min arrijali ci borom kër yi góor ñi ngay gis mu ne mu ne la bahima xar ak béy ak mbaam moo leen tane doom ji ne ko papa loolu doy na waar de mu ne te gis nga waa jooju fii suurati rajuli samii lmubsiri soo ko ne jëmm gis ko da ngay gis ponkal da ngay gis kilifa da ngay gis da ngay gis ndax am nay bët am nay nopp mu ne wa is fatinun waa jooju bi kulli musibatin fi maalihi dafa muus gis nga addunaam alalam ha ku ko laal dee sécuriser na alal ji sécuriser na ko yéreem yi muy sol sécuriser na ko sécuriser na jabar yi sécuriser na doom yi sécuriser na xaalis bi waaye gis nga diineem buñ koy rendi bu ñu jàppee diine bi di ko rendi amu ci yëg-yëg du ko yëg day xëy suba gis ñu rendi islam ci buntu kër gi mu ne kañ lañ doon rey lislaam ñu ne ko biig na baax na sax ndax ñu bañ a julleet yeewu fajar moom loolu lay wax ndeysaan te kat nee na jullit la yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ci hadis bi fu muy jeexee mu ne man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum mu ne haada waadun shadid lii mbugal mu metti la bu yonent bi dig képp ku wuuteeg moom ëllëg wa yaxtalifu dalika bi ixtilaafi nawi tashabbuh wa ma yaqaw fi lqalb léeg-léeg mu ne doomu aadama dina am ay déngi-déngi ci xolam waaye pas-pas bi lañ la tere nga wuuteeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi mooy ki ñu tere ñu wuuteeg mooy ki ñu sant ñu wuute yahud yi ak nasaraan yi moo ñu ko tere dundam yëpp dafa wuuteeg yahud ak nasaraan ñun tey nu toog di feet di màggal di jënd ay cadeau di joxe di ndokkeelaate bon nangam maa ngi lenn saa yi sax nga toog kilifa gu mag daal di lay yónnee ci whatsapp meilleur vœu daal lay bindal maa ngi lay ndokkeel ci at mu bees bi nga xool numéro bi nga gis kilifa gu mag la ci sunna subhanallah loolu nu mu mun a dalee ci luñ nu tere nun nuy dumlal mbaam mu medd mbaam rek dafa araamoon a lekk bu muy dund mbaam mbaam buy dox nii dafa araam a lekk bu dee nag waxi noppi yàlla na yàlla wan dëgg mu wërsëgal ñu topp ko yàlla na yàlla wan neen mu wërsëgal ñu sori ko alhamdulillahi waxda wala nacbudu gayra muxlisina lahu ddin walaw kariha alkafirun ibad allah yaqulu nabiy sal allahu alayhi wa sallam fi xadisi jabir qala ishtaka rasul sal allahu alayhi wa sallam fasallayna waraahu wa huwa qaid wa abubakar yusmiu nnaasa takbirahu faltafata ilayna faraana qiyaman fa asaara ilayna faqaadna fasallayna bisalatihi quudan falamma sallama qala in kittum anifan latafcaluuna ficla alfarisi warrum jaabir nee na yonent bi mujjantalu dundam bis bi nga xam ne mujj nañoo julleeg moom yonent bi dafa feebar feebar feebar ba mënta taxaw sallallahu alayhi wa sallam waaye xoolal feebar ba mënta taxaw mu ne wax leen abu bakrin na jiite jaam ñi yonent baa ngi biir néegam mu dégg abubakar kàbbar na ma ngay jàng yonent bi ñu xuusal ko sappe yi ñaari sahaaba jàpp mbagg yi kii jàpp mbagg ndeyjoor kii jàpp mbagg càmmoñ yonent bi tànk yi di direeku ndax mënta taxaw sappe yi daal di xar ñu indi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba ci kanamu abubakar ñu teg ko yonent bi di julli ànd ak ñoom abubakar di xool ci yonent bi lu mu def ñoom ñu def ko waaye yonent bi bu muy julli lu mu def dafa toog sahaaba yi bu ñuy julli lu ñu def dañoo taxaw yonent bi saa salaam ba mu sëlmalee mu ne leen dafa mel ne bi ngeen doon julli da ngeen a taxaw ñu ne waaw mu ne yéen day def ngeen tey jëfu faris ak ruum tey def ngeen jëfu faaris ak ruum sahaaba yi ne ko lan mooy jëfu faaris ak ruum mu ne wuuteeg seen yonent tey wuute ngeen ak seen yonent allahu akbar lan lañ wuuteeg moom ñoom lu ñu def est-ce que julli wuñu aha kay waaye yonent bi dafa toog ñoom ñu taxaw yonent bi ne bi ma toogee da ngeen a waroon a toog ngeen julleeg man ci sama toogaay moo tax ñu ne imaam su jullee toog na ngeen julli toog su jullee taxaw ngeen julli taxaw te yonent bi lan moo tax mu toog dafa feebar waaye bañ wuute moo tax mu ne da ngeen a war a toog comme yonent bi nu mu toogee fa lamma sallama ba mu sëlmalee lan la leen wax in kittum aanifan xaw ngeen léegi tuuti la tafaaluuna fiala alfaris wa ruum gars yi ne ko waaw lu waral loolu mu ne yaqumuuna ala mulukihim wa hum qu'ud ñoom de seen buur yi bu ñu ñëwee bu ñu duggee ci seen buur yi ñoom waa faris ak ruum ni ñu duggee dañuy fekk buur yi toog ñoom ñu taxaw du ñu toog dañuy taxaw yéen tey loolu ngeen def ndax damaa julli toog ngeen julli taxaw fala tafaalu bu leen ko defati na ngeen topp seen imaam yi in salla qaiman fa sallu qiyaman wa in salla qaidan fa sallu qu'udan hadis bi rawahu muslim ngeen xooli ko su ngeen ànd teg imaam muy julli toog julli leen toog su taxawee ngeen taxaw te xam ngeen ne mbokk yi fal qiyaamu ruknun min arkaani salaa laa tasixu salaatu lfard illa bi ma al qudra julli taxaw fa benn keno la ci képp koo xam ne da ngaa mën a taxaw nga ñëw julli toog sa julli yàqu na julli taxaw keno la ci julli képp ku ko mën toog sa julli yàqu na xoolal terewul yonent bi saa salaam ne leen tey da ngeen a waroon a julli toog lu tax parce que bañ a wuuteeg moom gis ngeen wuute bi nu mu garaawee kon tax na ñu bàyyi farata ñu bàyyi benn ruknu ndax lan yonent bi dafa toog kon dañoo waroon toog kon nañu mooy tandiku di wuuteeg yonent suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam lu mu ñu sant mooy ñu nekk ay jullit huzayfatul yamani nee na samitu nabi sallallahu alayhi wa sallam yaqul laa talbasu alxarir wala dibaaj wala tashrabu fi aniyati alzahab walfidda wala taakulu fi sahafiha fa innaha lahum fi dunya walana fi alaxira huzayfa nee na maa dégg yonent bi mu ne bu leen sol suwa yéen jullit yi bu leen sol suwa bu leen sol dibaaj xeetu suwa la waaye boobu moo gën a foor boobu la sax bi di génnee mooy dibaaj suwa liñ ci may jullit mooy lu loxoom mën a ŋëpp mu koy def musuwaar wala mu koy def karwaat wala wala wala wala loolu lañ may jullit ci suwa leneen lépp dafa araam ci yow waroo amoo droit sol ko mu ne bu leen naan ci ndabal wurus wala xaalis bu leen naan wala ngeen di lekke ci palaat boo xam ne wurus lañ ko defaree wala xaalis wala kudd goo xam ne wurus lañ ko defaree wala xaalis wala pot boo xam ne xaalis lañ ko defaree wala or bu leen ci naan bu leen ci lekk lu tax mu ne fa innaha lahum ñoom yéeféer yi ñoo ko moom fii ci àdduna yéen bu leen loon toppandoo ñoom àdduna ñoo ko moom ñun àllaaxira lañ ko moom xoolal wuute bi bu yonent bi ñëwoon tey Sénégal fekk jour 31 ginaar yëpp jeex marché yi lépp gaa yi ndugg ko dugal seen kër yi koo ne waaw lii nag mu naan la non man damay bañ sama sama doom yi quoi fekk yow kese la xale yi duñ dara ci ñoom dañoo am élève bu buy def 4 ans li may wax am nay seede ci biir jàkka ji élève bi 4 ans la am jardin la nekk 4 ans. dafa xëy jour 25 décembre di jàngi bii nii ñu nekk décembre bii ñu nekk dafa xëy jour 25 di jàngi mu gis magam yi toog. mu ne yéen lu tax jàngiwu leen ñu ne ko ñun dañoo am feet mu ne yéen ay yéeféer ngeen papa ji ne ko déedéet mu ne ko ah kay mu ne ko tey du feetu jullit ku ko feetu rek yaa ña ko feetu yéen a yem papa ji ne ko non non ñii seen directeur école jullit la mu ne kooku mooy yéeféer bu mag bi quatre ans mu ne kooku yéeféer la papa ji ne ko déedéet déedéet seen directeur école jullit la mu ne mu ne lu tax mu maye feet lu tax mu maye feet wax na dëgg xale bi wax na dëgg xadis yonent bi la wax man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum neexul ba neexul waaye loolu la ñun ñii ñëpp dañuy feetu di lekk ay ginaar buñ xëyee ñu ne bonne année musidɓe fulɓe caggal yettude allah e julde e nelaɗo men mouhammadun sallllahu alayhi wa sallam khutba men hannde wonno ahammu masail atashabbuh ko ɓuri mawnude e namde sharia islam o wi anden ko ɓuri mawnude e faandare l'islam e oɗo sharia woni julɗo o hoto nandu emo wona julɗo faandare mawnde e l'islam addi sharia woni julɗo o anda ko julɗo o wasa nandude e heefereɓe ɓe so yalti ɓe anda o ko julɗo so golli ɓe anda o ko julɗo so haali ɓe annda o ko juulɗo so gollodiri e ma ɓe annda o ko juulɗo o sertay hefere ɓe fes o wasa nandude e maɓɓe hay hunde ɗum ko aya alquran allah wi subhanahu wa taala haalani nelaɗo o wimo summa jaalnaka ala shari'atin min al amri fattabiha wala tattabi ahwa alladina la yalamun sen yehi e simore ene wiye suratul jasia en tawa toon allah wi an nelaɗo an muhammad ko min allah fawma e laawolam e shari am komin fawma hen nde fawmami hen ha gaynu mi wimi ya rewgol hata tello hata jippo a ɗum laaɓi oy fattabiha rew laawol ngol ɗum rek ɗo tan haaɗino ɗo tan yonino kono allah wimo wala tattabi ahwa alladina la yalamun e mbiɗa rentinoma an mouhammad mbiɗa rentinma wasa rewde ƴew allah wiyani diine de o wi ko belaɗe belaɗe ahwa holko woni ahwa woni belaɗe o wi wata rew belaɗe yimɓe ɓe annduɗa ɓe annda aye joni gando o woppa ko andi ko o rewa o rewa o wiya minen de komin tawi mawɓe ɓe ko ɗum allah wi rewe mawɓe allah wi ko yen rew mawɓe walla yen rew lawol ngol joni an wiya minne min de mi janggi mbiɗa andi ko gonga kono noon kono noon kay jangde nde jarani haade ade fay ha tellina wiye are ñaame wiya ala ala hoto hay goto ñaam nawen e baali kay jarano eɗen defa a yehi a jangi a gayni ara wiya ko ɗum saria wi kono wiya e e sen waɗi ɗum en serta e mawɓe ɓe somi waɗi ɗum joom suuda mawdema yahay somi waɗi ɗum moodi o yahay somi waɗi ɗum cukalel ngel yahay kon ko tagno eɗen janga mbokk julidi comme nun ko baaxoo def kenn ci sunu imam yi nga xam ne day jiite yenn saa yi roi baudouin wala muy jiite cap de biche bu ñu amee ngant souvent moom mooy dem foofu jabaram jamono yee passé dafa tolloon diggante nekk jigéenu wérul mu war a am doom ñu koy ñu koy pamti pamtee ci hôpitaux yi demal Caaroy demal Abbas Ndaw demal CTO demal Fann demal Dantec demal principal ba benn kilifa moo intervenir ñu doog a jël jigéen boobu Caaroy fekk c'est trop tard ñu opéré ko génnee doom bi ñu yóbbu ko hôpital jam ñaajo xale bi daal di génn àdduna ndaw si fii may wax ak yéen ba léegi mu ngi ci hôpital bi tëdd mu ngi caaro te xam ngeen hôpital boobu am na suñu beneen mbokk bu jigéen moom tamit problème location la am suñu paree julli képp ku mën a dimbali ñaari mbokk yooyu insha allah bi iznillahi tabaraka wa taala ci lenn loo indaale woon jumaa mu nekk sa poos nga mun koo fàtte ngir yàlla nga jàppale ñooñu insha allah yal na yàlla jàppale ñu inna allaha fi awni al abd ma kaana al abd fi awni axi yàlla mu ngi dimbali jaam bi fekk jaam bi mu ngi dimbali ay mbokk jullitam yàlla na yàlla wan dëgg bu nu yàlla wanee dëgg yàlla na nu yàlla wërsëgal ñu topp dëgg bi foofu la coow li nekk da ngay gis ku ne dëgg rek laa bëgg dëgg bi ne fàng mu ne waaye nag waaye nag ndeysaan moo tax yombul allahumma arina alxaqa xaqan warzuqna tibaa wa arina albatila batilan وارزقنا اجتنابه اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسألك أن تردنا إلى دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم لا تجعلنا جبنا فندأف عن قولة الحق ونتخاذل عن مقاومة الباطل ونتراجع حيث ينبغي لنا أن نتقدم اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله